we go ah ok ok guys the deal I know we back here xam nga in Sen Media tey ñu ngi fi ji hip hop ci compilation bi tudd Jaxaw démocratie Jaxaw man pour laaj le mot Jaxaw déjà c'est un mot wonderful donc ñu ngi ak Evi Crazy borom clash yi xam nga borom afa ñu ngi lay siyaar sister Euh, maa ngi delloo ziar bu baax salaamaaleykum mbokku internet yi maa ngi di nuyu di leen ziar bu baax c'est Ivy Crazy aka Moussou Kendo yëpp. ok ñun lu ñu bëggoon xam mooy sa intégration si Jaxawu démocratie comment ça s'est passé Fou Malade moo la directement wala sélection la wala.

jaxaw soo mënoon expliquer jaxaw un peu ci parce que man pël la man comprendre lan moy mais amna sama mbok sosé est surtout ils comprennent pas donc lan moy jaxaw voilà jaxaw moy dohandem nomade ci français donc moy ki nga xamné ne ben place day dem donc man je peux me considérer comme une jaxoo ndax dëkkuma fii Casamance laa bi ñëw na la voilà yow it nga nga ñëw.

dañu sant yàlla rek